Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbokk yi senegal mbokk julli di yi réew mi diaspora bi ak fu ab Senegal mana nek ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare euh di ñew tay rek di yëkëti ay euh, kaddu yu gatt yo xam dañ koy jëmele ci mbirum bi di coronavirus fi mu toll waaye bala loolu dañuy ñaanal sunu xalifi généraux yalla fi yag ñoom te wër di rafet lu baax geste yi nga xam ne jot nañ ko def ak fu ko ab khalifa mën a machallah allah tabarakallah AIS ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm te ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa nga yàgg fi lool euh, gis ngeen barki dem sëriñ Muntaxa euh, yàlla na fi yàgg te wér acte bu noble bi mu def euh, ci kàllaama sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadir mu wax wax yoo xam ne mënees na ci jàngat lu bari bi ci njëkk mooy feebar day am te jombut ci kenn ndax saxaab yi sax feebar daan leen dal mbas daana wàcc seeni jamono bañ joxe ci ay tur yoo xam ne ay turu saxaaba yoo xam ne ca lañ des te saxaaba yi ñoo ñu gën ci xeet wi waaye ba ci nit yàlla yi natt daan wàcc seen kaw yonente yi sax natt dana wàcc yonente yàlla ayubu ñëpp gis nañ ko natt ba wàccoon ci kaw muy pass ba ak mbas ma wàccoon ci kawam waaye na mujje naka noonu ba ci nit yàlla yi ñu baree bare baree bare seen i jamono pes daan am mbas daan am loolu mu jox ci exemple ne kon ñëpp war nañoo gëm ne luy am la te luy lore la te loolu yàlla teggilu ko kenn xamul ku ku wàlliyu ba xamul ku ku ku baax xamul ku safaanu ko loolu suñu bi dafa indi ko ci kàddu ko loolu am njàngat la ñaareel bi mu indiwaat beneen mbir avant démb président di wax dogalam bi sëñ Abdou Khadir wax ci ne euh, pare nañ pour lépp loo xam ne rek état du Sénégal ñoom ñu sàmmloo kaaraanga gi ak ñoom ñu sàmmloo wàllu santé wér yaram ak doomu aadama yi pare nañ ca pour am pour def ko euh, sëriñ bi tamit pare na ci lu mel noonu ndax ñoom lañ dénk wàllu sécurité ak wàllu wér yaramu euh, Sénégal yi. Euh, waaye yëmu ci loolu mu daal di yëkkati enveloppe bu toll ci 200 millions joxe ko ci turu xalif général de Mourid loolu kon mu nekk acte bu rafet boo xam waa sa AIS ñu ngi koy salier euh, di ko rafetlu bu baax a baax a baax baax waaye gis ngeen démb tamit bi euh, dogali jugee gis ngeen sëñ Babacar si Mansour xalif général de Tidiane ci lam ñu Pape Malick si macha allah yàlla nañu fekk ci wér moom te ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñi ngi ko sofalaat ci ndigal yooyu nga xam ne jóge na ci état bi wax ne kat kon dakkal nañ seen ziare général bi Eh, waaye gis ngeen dàkka tamit eh, xali fu fa nekk yàlla fi yàgg te wér nañ def gis ngeen laaye ni nañ def waaye gis ngeen ni tamit eh, lew nañu seen macha allah tabarakallah siyaara général bi ñu def loolu nag ñun en tant que ñoo xam ne AIS lañ di sàmm ndonal mag ñu baax ñi te ñu kenn ku lay laal ñëpp gis nañ ñu joxe suñ dara joxe suñ lépp ñu ñuy xas guddeeg bëccëg ay at a ngi nii ñu taxaw ngir bañ ñu laal patrimoine su bañ ñu laal yëngal maanaam ndonal mag ñu baax ñi loolu nag kon bu fekkee ne suñ xalif généraux yii dañoo def lu mel nii ñun en tant que wa AIS Euh, dañ ci koy rafetlu bu baax a baax a baax xam ne diine lislaam euh, lim jëkk digle mooy nit ki bu mu sànq boppam bu mu sànq nafsom yàlla subhaanahu wa taala dañuy wax ne bépp jaamu yàlla boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala wax na la nga def ko lam ciy njëkk xool mooy sa sa sa intérêt intérêt yi jullit bi moo ci nekk intérêt yi jaam bi moo ci nekk ba tax na yàlla day wax ne lépp lu leen nar a indil musiba lépp lu leen nar a indil ay ay ay maanaam bakkan rocca yàlla tegul leen ko laa yukallifu laa nafsa illa wusaha dem na ci ba ci weddi yàlla bu ñu la doon bundu xataal la dóor di la bàcc bàccal euh, euh, ngir bëgg nga weddi yàlla yàlla sax may na la nga wax ko silaam jooy bu nekk si biir xol loolu lépp ngir sàmmal la sa nafsu ndax dafa am qaayida boo xam lislaam moom lay digal mooy laa darar wala diraar yaakaar naa mu ñun ñëpp jàng nañ ko xam nañ ko ñi jàng euh, diine xam nañ ko mooy bul bul bul loru waaye bu lor kenn bu loru bu lor kenn dañ ñu wax ne sax jabar bu fekkoon ne jëkkër bu fekkoon ne dafa feebar feebar boo xam day wàlle dañ ko war a tàqaleeg ak ak soxnaam takale ko ak ay doomam naka noonu soxna tam bu Februari Februari bal dañ ko wara takale tàqale takale ko ak ay doomam loolu l'islam tek na ko bu yag yag yi ñu wax naan ay quarantaine l'islam jitu na ci tubaab bi bu yag yag depuis 1400 ans bi yantu sallallahu alayhi wasallam waxe ne ida ida sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha bu ngeen degge ab pest wala épidémie ci ab dëkk bu leen fa dugg mukk bu wax mu dem ba wax ne bu fekkee ne dugg na ca biir dëkk boobu ngeen nekk fa bu leen ko génn fala taxruju fala taxruju minha bu leen fa génn mukk loolu kon quarantaine na boo xam yenn chance ba mu ko doxee conseil kenn xamul kañ la kon damay wax ne ñun jullit ñi waruñoo ñëw ba act ba actuellement ni heure bii ñuy juyoog waxi yonent sallallahu alayhi wa sallam ñuy juyante ak moom ndax moom la yàlla yoon yónni moo ñu moo ñu gën a xam suñu lépp donc kon dafa mel ne kon suñu xalifa généraux yi li ñu def ñoom dañoo delluwaat buum ca boy booy ba lañ delluwaat buum ca boy boy mooy l'islam moo leen fal l'islam moo leen fi teg ñu jàng l'islam war cee jiide nit ñi bërki dem si mesbul xaadir li wax leer nañu ñëwaat xalifa euh, xalifa jara de Tidiane suñu Babacar Sy Mansour li wax ci porte par Bab Malik wa Dakar wa Layen wa ñëpp li ñu wax leer na nañ kon gàcce ngàllama kep ku bëggono a jam euh, kilifa diiné yi naam gis nga des ci télé yi ñi nga xamné dañ leen tuddé ay intellectuel wala nangam euh amna ci ndaw su jigen suñu gis sax duñ tudd ñu nekk télé yi commencé wax melni luy mal placé manam khalifa généraux wala dirigeant euh, l'islam yi ak ak askan yi ñuy ñi di wax leen ñi di wax nangam te fekk ne ñoom bu dee geste ak at ñoo ci njëkk jiitu bu yàgg yàgg yàgg kon nag li fi des mooy mbokk yi ñun julli nii nañ xam ne coronavirus dafa am lu réel la loo xam day faat day rey li ñu war a def nag mooy faag xoddi ko bala ngaa lakkale yàlla waxu na ci alxuraan yaa ayyuha alladina am xudu xidrakum loola ba mu koy wax booba julliñ dañ doon jàmmaarloog seen i noonu mu bañ ñu bett leen mu ne waaj leen seen i ngaana waaj leen seen lépp ba xam ne kenn du du ñël du leen bett lii am na muy coronavirus yi bu gën rëy ci kaw suuf mo xam fu mëna joggé ñu bari ñi ngi naan tubaab yee ko keneen ñee ko waaye ñun loolu suñu yoon nekku ci la ca nekk moy bala la bu yalla wacc ndax bala ñaar lay doon bo xam ne ci loxoy doom adam lay joggé wala bo xam ne yàlla moo ko mu nekk azar bo xam day am lu mu ci mën di am rek bala la peste la épidémie la mbass la julit bi wala bok en tant que nek doom adam li nga wara jëk def moy nak nga ci wara muccé paré pare ci muccé pare nag ba ciow la jeex loolu jënd nga waifing li jënd waye fiñu tollu ciow li ak polémique bi ak wax ji dëgg la du dëgg loolu damay wax ne wala yes billahi taala képp ku xamul jamono ni muy doxee wala boog delluwaatoo jàng lislaam jàngum pes ak mbas ni mu daan amee ak yonte sanc ñaan yi mu daan digle loolu damay wax ne képp ku ko xamul yaay sàggane lu mel nii te dafa am loo xam ne lu garaaw la ndax alqadru charruhu euh, wa xayruhu da nga ko war a gëm dafa bokk dëggal gëm yàlla yi gëm gëm maanaam sàkk ngëm yàlla da ci bokk mooy nattu dana am pes wala bas lay doon bu ñëwee xamal ne yàlla moo ko wàccee ak fu mu mën a jaar yow yàlla dala diggale nga moytu ko ndax am na loo xam ak xaru di jéem a gëm ne mbir mi amul di jéem a wax ne nangam ak complot loolu loolu yow yaa ngi sànq sa bopp te yaa ngi sànq askan wi yaa ngi leen sànq kon la ñu war a def nag actuellement nii mooy roy ci suñu xalif généraux yi ñi nga xam ne jël nañ seen i mesure ñi nga xam ne wax nañ li ñu war a wax def nañ li war a wax loolu képp ku di ab jullit wala ab taalibe nga ànd ca topp ca te bañ a nekk ci réseaux yi nga xam ne am na kenn ku ne dugg naan am naag amut ak waxuñu dëgg gisuñu ko tubaab loolu damay wax ne loolu wala yes billahi taala jamono dépassé na lu mel noonu ñi koy def ñu ngi leen woo nañ ñoom ñoom ñi koy wax doo ci gis kenn koo xam ne dem na ci centre ba wala fañ ko wax rek dem ci dem fa da ngay nekk rek mu daal di jël audio daal di sànni loolu sànq askan wi la. loolu nag ñi ngi jeexal suñu kàddu ne ministère de la santé am na ci part de responsabilité loolu moom laa jeexal samay kàddu ministre de la santé am na ci part de responsabilité ndax communiqué bi ñu waroon njëkk a def mënewuñ ko dañ ko raté ci début bi ndax lu mel nii bu fekkee ne am na ci àdduna bi mu war a laaj convaincre nit ñi sensibiliser leen ba nit ñi gëm ne feebar bi na ba duñ gëm ne waxi état la. comme Sénégal yi lu bare bari wóolatuñ politiciens yi wóolatuñ journalistes yi wóolatuñ lenn ci waxkat yi loolu kon bu mel mbir mu mel ni bu amee war nañoo toog woo experts yi woo borom xam-xam yi mooy imaam yi ak olama yi ak nit yi diine yi nga xam ne am nañ crédibilité ñu toog waxtaan ak ñoom ministère ba def euh, créer cellule de communication bu dëgër ñu toog waxtaan mbir ba mbir leer seen bopp ñooñu bu ñu jógee nag commencé di waxtaan ak askan yi di waxtaan ñëpp nga xam ne loolu day nekk lu officiel waaye dafa mel ne ministre de la santé dafa ratte mbir mu yàgg yàgg yàgg moom rek lañ gis muy communiqué te ñoom nit ñi wóoluwuñu leen gëmuñu leen moo tax nga dégg nit ñi wax fee naan affaire yi nangam laa nangam laak kenn ku ne wax loolu lépp la ko waral mooy dès le début yu mel nii bu amee nañ ci impliqué ñi ñu ci war a impliqué ñu dugg ci biir euh, xam mbir mi naka la demee mën a communiqué ak doomu aadama yi mën a communiqué jullit ñi mën a communiqué ñëpp loolu dafa war a nekk lu am waaye amut gis ngeen euh, am na initiative bu rafet boo xam ne euh, ñun ak ñoom imam Dame Ndiaye muy Ligue des Oulémas def nañ ko fii ci institut institut te bañ koy def defuñu ko état waxuñu kenn waxuñu ko dañoo xam ne mbir mi lu réel la lu am na mooy coronavirus am na ñu jël suñu initiative toog waxtaan génn décret boo xam ne yaakaar na ñëpp liir lañ ko donc nag lii am nag nga xam ne nit ñi ñi gëm na ñi gëmuñu loolu responsable état la day delluwaat heure bi ci ñoom ndax communiqué bi waroon naa gën a leer nañ ñi war nañ ci dugal ñi ci war a dugg ñu xam mbir mi naka la demee man a waxtaan nit ñi waaye loolu amul moo tax lii am moo tax état baa ngi sonn mi ngi jéem aaye waaye wóor na ma li ñuy aaye ni am na ñoo xam ne ñu ko respecté am na ñoo xam ne ñu ko respecté ndax ba léegi dañoo gëmul ne mbir mi na te loolu lépp responsable day delluwaat ci ministre xam ñoom lay seq kon daal lii mooy kaddu yi euh, bi xam état euh, euh, maanaam président jël na ko loolu mooy li nga xam moo war ndax tamit mbir am na foo xam bu fa tolloo euh, waxtaan na kilifa yi am na ñu jot waxtaanal moo tax démb bi déclaration bi génn gis nañ kilifa yu bare bare bare bare bëri ci ñi nga xam ñoo yërif waa AIS ak kilifa yi gis nañ ñoo ñëpp joxe ay dogal ne dakkal nañ seen i mbir kon loolu tam ñu ngi koy sal yu baax waaye di waat encore une fois askan wi xam leen ne le coronavirus bi balaa la bu yàlla suma subhaana wàcce lu rayal la lu wér la ki amul nag yàlla boo xam ndax heure bay ñëw ba muy ñëw ci yow bay dal ci yow booba sa trop tard kon nañ xoddiku bala joo lakkale dana matte du matte bu jox sa loxo yàlla na ko yàlla jëli ci àdduna bi yàlla na ko yàlla jëli ci réew mi di Sénégal wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala